Amdy Moustapha maa ngi lay nuyu jërëjëf. Lamine maa ngi lay fay. tey loolu sa teewaay fii. waa tey dañoo woon benn réunion boo xam ne gars yi dafa am message bu ñu doon. nga nuyu mbokk internet parce que nam na. waaw di nuyu Sénégal yëpp di la nuyu di nuyu journaliste yi fi teew yëpp hmm, di wax ne kontaan naa tey teew fii géej ngeen maa gis mais laqatu nekk suma ma di liggéey la woon rek nekkul dara xam nga tout le temps maa ngi ci dëkk bi maa ngi liggéey maa ngi entraîné maa ngi ci jàmm ak salaam maa ngi nuyu ñëpp daal di wax ni kontaan naa tey fekk réunion bi nga xam ne mën naa ne actionnaire laa ci laa bokk. Euh, kon saa ñu ma wooyee damay ñëw teew tey comme que entraîné naa semaine bi yëpp tey mu nekkoon sam samedi ñu amoon benn réunion ma ñëw dóoraleen beneen 30 minutes rek après dem ko yeah. yàggul dara Père Balla gis nañ ni génn na àdduna boobaak léegi gis ñu nga jaale sa nga lancé. sam njaal ci réseau sociaux yi donte bu fekkee dem nga fa sax wala demoo fa loolu wóoruma mais yaakaar naa am nga occasion pour jaale ki nga xamante ne tey mooy doomam Youssou Ndour ak problème yi nga xamante ne moo leen tàggat surtout Balla Gaye numéro waa dëgg la dem naa fa après lan demi bi yal na ko yàlla yërëm xëre ko aljana moom Baye Balla ak ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk yëpp di jaale aussi Pape Bouba Diop nga xam ne sagal na Sénégal yëpp am na bés boo xam ne yaakaar naa Sénégal yëpp la bégal kon yal na ko yàlla yërëm Baye Balla moom ñu ngi koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale doomam yuusu Ndour dem naa ba foofu gise nañ waaw di ko jaale njaboot gi yëpp ak waalo waalo yëpp yàlla na ko yàlla yaram xere ko aljana waaw. macha allah am na solo léegi dama bëgg nga ñëwaat ci li waral sa teewaay fii tey parce que instant bi ku ne xam na ni mbëkk mi bari na torop torop torop li ko waral nag mooy ñàkkul liggéeyul ndaw ñi tax ngeen créé benn association bu tudd tekki sans mbëkk mi. a lan moo waral sabab yi. waaw di ji jaafi ji jaaya jëfal Bamba président ak suma assant Thioune nga xam ne yu mel ni saa bu amee moo ma nan dem ma ñëw tew waa xam nga tey dafa ñëwoon benn message bu ñu doon jàllale rek mooy suñu mbokk yi dem ci ci ci gaal yi waaw ñëw génn na waxtaan ak ñoom rek xam nga bu ñu ko mënee bàyyi ñu bàyyi ko quoi parce que dëkk bi moom yaa tout lépp a ngi fi. bu ñu nee pétrole am na gaz am na leneen ak leneen xam nga tubaab yi fii lay ñëw jël pétrole bi jël ba ci suñu sumb yeeg suñu gerte gi xam nga dem liggéey ko indiwaat ko kon pourquoi pas ñun ñu nekk fii xam nga mënuñu ko liggéeyal suñu bopp lu mel noonu boo xale yi toog ci dëkk bi looloo waroon message bi rek nekkul nekkul leneen quoi. loolu waral message bi te da ci créer association léegi est-ce loolu ci ay wax rek lay yem est-ce que du jar tamit association bi fexe xale yi nga xamante ni amuñu amuñu amuñu amuñu métier. ñu fexe état bi jox leen métier ndax ndax yaakaar naa ne boo gis ñi jël gaal ñëpp ñàkk métier moo tax ñu jël gaal gi. waaw wax ji am na ci solo waaw kenn ku ne wax wax waslu ci sa àq comme niñ koy waxee euh, bu loolu weesu it état bi mooy première ñi ci gën a war a mën a jàpp du noonu euh, ak exemple ak ndaw yi nga xam ne nii état bi ñoom la fi neexal exemple ministre yeeg ñoom seen euh, mën naa la ci jox benn anecdote en 94. donc ñu ngi mobiliser woon ay ay ay nit ñu bëri ñu ne dañuy béyi ba man mi xam ne woon ne dañ ma ciy jox benn tool xam nga euh, mu nekkoon euh, bés boo xam ne ni bés bu waajoon la ñu demoon soonu bawol bi won ma site beek yëpp comprendre nga te lépp problème mu ndaw yi la woon man loolu bu ñu ma ko joxoon rek mën naa ci yoroon ay jeunes yu bëree bëri ñoom lan lañ ci jublo woon mooy na tool bi rafet président gis ko mu woon na lii liggéeyu président la ba ñu demee laa leen ne jox leen ma ma tracé ko vite fait nu mu mën a mel président gis ko dina rafet dina mel ni mu war a mel bon ñu ne ma xaaral ñu gas teen yii ak nii ak nii dégguma leen te loolu noonu ñi ko jiite woon ñu ngi fii ba léegi man donc keroog bi may dem ñu ma dugal ci oto ministre bi amoon na benn bus boo xam ne li ci ne mot na soixante personnes ay jeunes bi ñu demee ba ñëw ci la ñu commencé ñëw di leen seddale ay xaalis yu ñàkk fayda loolooy woon ne kon affaire ba du dem affaire u moonin la woon xam nga ñay ñëw lekk nañ leen ñu lekk dóor ko mu dem seen yoon te xam nañu leen bu baax te bu wax jotee man dinaa wax xam nañu ma bu baax bu ñu ma déggee dinañu xam li may wax ña woo jële ma sama kër huit heures ba une ci guddi donc xam nañu leen xam naa leen bu baax bu ma nee ma tudd seen tur wan bàyyi wan donc bu ñu ma déggee may wax dinañu xam kii lan lay wax ak fi muy waxee lan la donc kon saar mel noonu ñooñu kaso mooy seen place parce que lu ndaw li dugg ñoom ñoo leen ko yebee kon nañu bàyyi li ñuy def te président buy tëggati yenn procès yi mu xam ñan ak ñan la koy jox loolu la quoi. jot na tamit président comme ni nga waxee ni kon dafa jot président ak ak ak gouvernement bi yëpp ñu gestu ndaw ñi. mais loolu war a am sax parce que ndaw xam nga muy dëkk exemple comme ni ma la ko mën a expliquer tey da ngay gis moyen de benn 30 ans xam nga des si géej gi xam nga ñooñu seen dund mara day taal doy na war. dara gënul métti lool kon lan moo tax mënuñu jóg ci ndaw yi jàppale affaire bi arrêté quoi waaw. mais yow gis amagoo mbokk bi ci dem bawol bawol yooyu na ñu ngi ci ay bawol te amul géej. affaire bi moom affaire bi moom fépp la bien vrai que bawol bawol ñemewul géej mais ñëpp ciy dem. parce que dañu tollu moment boo xam ne nii dootuñu gis dara. et bien dañuy gis euh, moment boo xam ne dootuñu gis dara lu dul dem quoi. réew mi yëpp la ah. réew mi yëpp la. ok am na solo léegi Tapha Tine sànq da ngaa demoon entraînement samedi da ngay entraîné. amul bés bu ma dul entraîné moom wax dëgg yàlla des fois dimanche sax damay matinal lu dem entraîné ñëw quoi. Hmm. wax dëgg yàlla. est-ce que dafa bon loolu yow xam nga ko keneen ak keneen xam na ko Sénégal yëpp xam nañ ko. loo xaar ci CNG bu bees bi loolu tamit waroon naa la ko laaj parce que Alioune Sarr jóge na fa boobu ba léegi parce que Tapha nag kenn gisatul instant bi yaay góor gi ci roq bi lan ngay xaar ci CNG bu bees bi gannaaw coow li nga xamante ni at yëpp topp na Alioune tax ñu jëlee ko fi André Birassi waaw loolu lépp boo ko gisee bien vrai que entraîné làqu la rek nekkul leneen CNG bi rek li ñuy xaar ci moom xamu mooy liggéey bu bees bu tegu ak jamono loolu lañuy xaar ci moom. parce que am na lu fi newoon coow li bëri na na dem na toog léegi dem na léegi li ñuy xaar <laughs> mooy mooy mooy liggéey bu baax rek bu tegu ci yoon loolu lañuy ñuy xaar quoi. ñu bari tey libéré nañ leen ñu mel ni musiciens yi ñu ngi dem ci seeni soirée tey boo xool monde de la kese la ñu libéré pour ñu dellu tamit ci seen métier est-ce que jotul tamit ñu fexe organiser leen fexe état def influence ci yenn sociétés yu mag yi ñu sponsoriser promoteurs yi pour ñu def lamb yi même bu fekkee tey stade bi 60 000 places lay def ñu fexe mu def 30 000 places pour ñu ubbiwaat lamb waaw dëgg xam nga instant yi grand théâtre fu mel ni grand théâtre tey bu ñu ko ubbee musiciens yi dafa teg ak yenn boîte yi. pour man moom lamb jarul wax quoi parce que lamb da ngay toog sylvissé xam nga toog ci endroit stade bi seetaan. mais musique moom sama mbokki musiciens yëpp maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp su may xarit lañ mais li ubbi musique bi moom war na mën a ubbi làmb ji pour man waaw mais ñun suñu sport moom li ñuy dimbali tey ak liy dimbali promoteur bi tey sponsor réseau téléphone yi ñëw accompagner leen te loolu benn kaddu moo ko mënoon wax mooy président lii laa bëgg ngeen defal ma lutteurs yi Maxime Bergane mu ngi koy wax vidéo bu ñëpp ko apprécié ñëpp a ko rafetlu décret moo tëj làmb ji nañ waxaat décret ubbi ko donc xam loolu daal laa amul lu ma ciy wax quoi. seen association yi tamit ban njariñ la am parce que yéen bëri da ngeen am ay association yu dul jeex est-ce que loolu waru leen cee def ay ay ay ay dox ay tànk ba ñu ubbi làmb ji parce que yéen rek yéen a mën a wax instant bi ba làmb ji tijjeeku mais soo leen toogee jàpp seen njàmbur ministre bi tamit da di déglu. président lutte en actel moom wax dëgg yàlla man xameetuma ko quoi wax dëgg yàlla. jiri la moom bu wootee woon gars yi dañ koy fekk si corona bi donc bi mu wootee gars dañ ko fekk si man dama participer keneen ak par keneen ak keneen participer yu mel nii bu amee day woot day laaj nga woote quoi. tey bu la woowee bu la woowee di nga ñëw. non pourquoi pas dal ma woo ba tay ma fekk si ko ak ñeneen ak ñeneen pourquoi pas mënul woote lii ak lii moo xew nañu taxaw lii ban solution mais duñu la for président rek nga toog jàpp sa njàmbur quoi c'est le bras dara du mars et ñii dañu nekk fii di sànni xeer genn walu kenn du ànd ak yow looloo fi nekk président yi fi am yëpp xam doy na waar quoi. muy seen ji daal dafa war a dafa dafa leen war a woo ngeen dem seeti ministre bi même bu fekkee da fi jéggi ministre bi sax dem directement ci ci ci président pour ñu tijji leen seen làmb. waaw noonu la demee nag noonu la demee nag mais en war na doxi jéego daal président daal du nii quoi président moom bu la folee moom il nga doxal quoi. combat sa combat fii ak mois est-ce nga cee pare. non man suba ci dimanche bi bu doon suba waaye poids bi da wàññi lan moo la ci war kañ nga ma gëj a gis yow. yaa eh, man kay xam nga kañ laa a gis ba ngay taxaw ba ñu combat bi tax. mu ngi noona noonu lan moo la ci war bu doon suba ci dimanche yi pare naa pour sëg. pare nga pour boo ñaa jël naa ko dem mu ne pare na pour xeex ak yow cinq minutes. non man moom anyway quoi du ma ci wax du ma. cinq minutes la bés la bés bu mag la bés bu ma respecté la xam nga voilà. lan moo tax nga wàññi fi wàññi. bés ak biir ak biir bi yëpp dem. bee ko laaj rek. da ngaa mu xeex dama bëgg. <laughs> baal tooñ quoi. ak bëgg a xeex. non non non baal tooñ. léegi damay bëre quoi. da nga bëgg a bëre boo nga bëgg a wuree. damay léegi damay mbapat yow tam xanaa gisoo. dernier combat bi da nga am xanaa da nga am loo bëgg a wane sa diggante ak boo ñëwee. dama mën a mbapat ñi ma seetaan. non mbapat rek laay teg quoi incha allah. sànq li nga wax nga ne maag Lirou Diane kaso lañ neen lan moo tax nga wax loolu. Lirou lay nuyu ko sama grand la sama xarit la dañuy déggante. bal jàpp noo bal tooñ moom laa faral ah. liiroo tooñ de. non liiru kenn tooñu ko liiru dañ ko tooñ. loolu tax muy simb bal jàmbur. nee na bawal la léegi. liiru fi ma déggee fi mu dégg presque benn la. waa gis nga moo ko refoon benn la quoi suma grand la suma xarit la wax dëgg yàlla. kontaan naa ci bu baax a baax kañ nga def États-Unis fan yi rek incha allah. boo demee États-Unis jël poids dafa sedd dégg. non moo baax bu ko laajee dañ koy jël ah. bëgg nga jël poids. déggoo li ma la wax combat bi lu mu laaj rek dama koy def incha allahu rabi. ana ana ñortaa lan mooy loolu. saakaande mooy la. saakaande après naa leen koy wax incha allah. mais dafa mel da nga décidé ci combat parce que premier jour combat bi day taxaw. nga ni bu ma kenn wax dara xeex force. maay booy bu ma wax loolu. tey dañuy tey da nga jël son information dañu daje par. émission euh, boobu man ku ma jël ku ma ku ma laaj ci combat bi dama koy laaj. rendez-vous incha allah rabi ñu dóoraat beneen émission incha allah dégg nga. wax ma lan moo tax nga ne xeex force. waaw mu noonu. thank you.